tey célébration wu 61e anniversaire de l'indépendance du Sénégal contexte Covid 19 bi waral maanaam défilé amul waaye teewul ñi nga xamante ni ñooy takk der yi ci seeni anam jëm nañ kaa mandargaal commissariat central bu urbain bu Njaareem tey jii amal nañ fetu indépendance boobu toog waxtaan weccantey xalaat foo agréé Moustapha Diop di adjudant foofu ci commissariat boobule. moo ngi woowaat askan wi ci collaboration bu dëgër ndaxte loolu mooy muccal liggéey bi. nekk fête boo xam ne nii comme ni ko ñëpp xamee dañ koy fêter euh, sur le territoire national dans l'ensemble du territoire national ñun nag ñu am suñu particularité buñ koy fêter mooy dajaloo en famille comme ni ko ñëpp xamee la police nationale moom. Euh, c'est une famille, c'est une grande famille ñun nag euh, notre particularité ñu dajaloo entre famille euh, euh, toog en communion invité suñuy doyen doyen ci ndigalu suñuy kilifa li ko commencé ci kilifa bu mag bi directeur de la police nationale ak directeur. Euh, de de la sécurité publique wàcc si suñu kilifa gi nekk ak ñun fii di liggéeyandoo ak ñun fii te yilif ñu ci kër gi muy le commissaire Ngom à travers le commissaire Ngom euh, le commissaire euh, Diallo euh, ensuite le commandant ak ñun ñi nga xam ne ñoo ko seq liggéey yi fii di inspecteurs yi ak agents yi ak ASP yi voilà la police est là pour servir la population assurer seen sécurité euh, assurer sécurité nit ñi ak seen i seen alal seen jumtuwaay euh, nous sommes aussi pour euh, lépp lu jëm ci wàllu sécurité euh, ba pare xamal leen na aussi police dafa soxla ñu koy ñu koy jege. donc dañuy invité nit ñi à ce que ñu xam ne police moom euh, yéen lañ fi nekkal donc bu ngeen ñu jegee rek ñun fa fas yéene ñu comme ni ko daan defee rek ubbil leen suñuy porte waxtaan ak yéen diisoo ak yéen ba nga xam ne liggéey bi ngi dina gën a mën a oyof ci ñun dinañ ko def ni nga xam ne ni noonu la gën a sellee loolu daal. population bi bëgg nañ ñu gën koo xam donte xamoon nañ ko. mu doon nag fête boo xam ne ni saa yu amee ñi nga xamante ne nii ay anciens lañ jaar ci commissariat bi dañ leen di invité ndax papa Amsatou kebe ñu gën kaa xamee ci vie kebe nekk brigadier chef d'agent de police à la retraite teewoon na ci mbégte bésu mbégte bi te di xam ne di fësalaat mbégteem ci waa police jàpp gi ñu ko jàpp ba tey. événement bi nga xam ni moo ñu yàbbu ci ambiance de kermesse bi du dara du dul euh, fêter notre accession à la souveraineté internationale ñëpp xam nañ ni le 4 avril c'est la fête nationale de l'indépendance et comme l'a dit le président de la République hier dans son message euh, la fête nationale c'est pour les militaires et la jeunesse certes la police est un corps paramilitaire mais aussi am nañ ci sunu looloo tax le commissariat urbain de Diourbel chaque année malgré ma position de retraité mon statut de retraité mais à chaque fois dañ may invité muy nekk lu may rafetlu lool parce que day wane ni ba tey ñu ngi lay bàyyi seen biir e ça c'est très important souvent dañuy wax ne la police c'est un métier ingrat mais man sentiruma ko parce que à chaque fois foo dem nit ñi dañ lay accueillir dañ lay recevoir et c'est très important donc euh, fête national sunu fête la malgré contexte pandémie bi ñu nekk moo tax léegi a défilé prise mais du tey avec notre statut de corps paramilitaire donc ñu koy féete à notre façon dajalewaat fii éléments yi échangé waxtaanaat mu am ñu xam ni nu formons une famille boo gisee ñu naan la police c'est une famille mooy la police par exemple éléments yi li ñuy defante seen biir duñ ko defat ak seen kër donc kon nag événement bu mel ni bu amee ñëpp daje euh, vraiment gars yi nangoo génne seen i moyens def benn cocktail bu neex donc dañ leen ci remercier rek Dramane Fofana nag nekk agent de police ci commissariat centrale en service moo ngi fësal mbégam bu baax. comme tey mooy suñu fête nationale loolu moo tax ñu dajaloo fii def benn cocktail bu ndaw si suñu ndigalu kilifa yi loolu moo tax ak euh, suñuy doyen ñoom ñoo jàppale ñu ci affaire bi pour ñu mën a def euh, suñu fête nationale ici au commissariat central de Diourbel ñu dajaloo fii ak suñuy autorité suñuy kilifa. sunuy classe sunuy promotionnaire ak aussi tamit sunuy collaborateur ay ASP ñun ñëpp ñu dajee fii pour euh, mën a feete daal sunu feet quoi defee ko si jàmm loolu la woon quoi waaw kontaan nañ bu baax a baax tey moom waaw loolu la woon quoi ok merci. na kàddu bi la ba ñi nga xamante ne tamit mooy colla seen collaborateurs yi di ASP yi àndal la Dieng. di souhaiter ñëpp euh, bonne fête de l' indépendance waaw ci contexte bi nag mu nekk moo tax ak pandémie bi moo taxoon commissariat central daa jël benn initiative pour fêter indépendance bi waaw daal di rassembler gars yi def ay quelques togg ay añ ak xam nga. ñëpp a ngi ci biir ASP ñoom ñëpp gars yëpp ñëw nañ waaw macha allah waaw commandant bi kontaan nañ ci collaboration parce que fii moo suñ moo suñ deuxième kër parce que ñun fii doo xamee sax ASP ak agent bi. parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk mbaay waaw lu ASP bi def agent bi def moo tax gars yi daar di koy créé loo xamante ni pour ñëpp waaw bokk ndey bokk mbaay si loolu noonu quoi.